cest man euh, comme ni ko ni ñu ko waxee rek c'est-à-dire am. Euh, responsabilité responsabilité réew mi. Mm. que mu lépp jaar ci yoon lépp dox ñu nekk comme ni ñu meloon mais lépp nag man jàpp naa ne ça dépend ci gis nga bu bëggoon jàmm tey jàmm am ci réew bu bëggoon noflaay ñëpp am noflaay. ñun bëgg ngeen jàmm parce que bien sûr bëgg nañ jàmm. Mm. parce que même ñun bu ñu jotee ci réew mi ci ñàkk jàmm ni ñu koy gérer. ah waaw baax na c'est une bonne question ça. non doo ko mën doo ko mën a kii loolu ci jàmm ci fi boo ko jotee ci fitna ci fitna da nga ko yore mhm. wala nit ñi tamit duñ la may jàmm joo ko diriger kon nag ma jàpp na ne comme euh, monsieur Sagna sànq li mu wax mhm. ci mbiru procès yi mbiru Mame Mbaye Niang benn Mame Mbaye Niang démissionné woon na fi mhm. Mame Mbaye Niang le 28 février 19 ci Dakar Actu nee woon na kii am na nu mu tuddati euh, rapport rapport am na Amadou Ba fii ci mu ne rapport am na mais xamuñ nan lañ def ba mu senn ci presse kon ñoom d'accord nañ rapport am na Macky Sall ñu wax mu mu wax nit ñi dégg mu ne am na rapport yoo xam ne maa ci teg sama loxo waa léegi rapport yooyu mu teg loxo est-ce que bi teguñ ci loxo buñ ko yëkkati woon est-ce que rapport bi duna fànn of nag yàggul génnee rapport mos ngeen gis rapport buñ ci doxal ci réew seeni bu ñaa na fi Ngom Keïta seen rapport yëpp anamu yëpp ko dañ ci teg loxo nañu yëkkati loxo yi ci ci kii bi rapport mais boobu duñ ci rafet du ngeen ci rafet njort xalaat na ay dossiers yu mun a taal réew la de waa léegi lu mën a taal réew lii taalu réew waru ko taal la wa waru ko taal mais nag lii fi waaw nit ñi foog ñu yéew kenn waxu ne nañ taal réew mais ah. lii dee nii est-ce que lii jar na ko ko économie bu yàqu nit ñi jaaxle nit ñi am jafejafe jafe ci depuis presque deux mille euh, vingt et un ba léegi kenn nekkatu réew mi kenn nekkatu ci ñàkk a uyu ci déedéet ci wuyu ji dafa wuyu ji woon benn yoon la mos a wax ne wuyu jiw ma muy ci début ba mais bi ci paase dafa dama dégg Birama si si si au risque de me tromper rek dama dégg Ousmane Sonko waxaat que ne moom dina dem wuyu ji mais à condition nañ ko garanti si léegi mu bañ a nekk xeex ak xuloo ñu jógee ñu par projet bi koy def nii bu bëggee dem oto yi bi ñu koy tojoog yooyu fu mu nekkoon yéen a ngi koy gis lépp direct yéen a ngi ko doon def direct ak yooyu lu ko fi jar nee naa buy dem comme ni ñu bàyyi woon Idriss Seck mu dem nu mu ko neexee Sall ñu bàyyi ko mu dem nu mu ko neexee nañ ko bàyyi mu dem nu mu ko neexee ku yàq nag ànd ak moom nga toj wala nga def loo war te def nañ la teg daal loolu d'accord wuñ ci pour ànd ak Ousmane ko defal lu la neex déedéet mm-hmm. dañ koy encadrer mu dem ci jàmm ñibbi si jàmm loolu seen suñu droit la mais aussi tamit nañ ko encadré ci jàmm. mais pas ñu koy fitnaal. ba di toj buntam on se on on se rappelle keroog Diagne. bi nga xam ne Ousmane waroon na dem defe naa ja euh, Ousmane Sonko je m'excuse dafa mhm. waroon a dem. Mhm. jàkkaarloo ak. ñaar defe naa c'était ci ci biir euh, bureau doyen des juges dafa génn mu wax ne soxla soxlawul kenn ku ko gunge. na ñëpp toog seen kër dina dem dina jóg dina dem wuyu ci keroog est-ce que violence am na. moo tax ku nekk na jël xam ne bañu ko jël nañ ko ko jàpp. c'est ce a la sécurité nañ ko assuré aussi tamit xanaa du toog bañ wala di ko def li luñ ko war a def. def nañ ko li ko war a def di gis nañ publiquement nit ñi koy ni ñu ko sonné léegi lacrymogène ci biir oto ci nangam ci biir tribunal ba sax la fois passée bi muy mujj ñëw tribunal maa ngi tribunal maa nga taxaw. moom ak Barthélemy ak amin nu mu tuddati ñoom ñépp ñu ngi taxaw ci biir tribunal bi lañ dóor lacrymogène pour jëlaat ko ci biir tribunal nu mu tuddati avocat yi sax dañ leen doon bëmax ci biir avocat ci biir kii bi tribunal Diagne